y'a minɛ a kɔrɔ ta dɔrɔn a kɔrɔ ta i kan si wala n'o bɔ minɛ la k'a kɔrɔla ma minɛ n'o bɔ minɛ la e cɛ ye e cɛ ee bana a bana fara bana fara bana ko bɔ minɛ ko bɔ minɛ. wáyé bẹ́ẹ̀ láì fọ́ ẹgbẹ́ ojú o wọ́n bá wọn sọ mẹ́rin òkú kúbi yìí láì jẹ́lá bọ́lá bọ́nà. bọ́lá bọ́nà. ee bọ́ mi la o bá wọlé ìjẹun rẹ ọ bá ti àmọ́. bọ́lá bọ́nà bọ́lá bọ́nà. Abana po. Abana! Abana!